ard ak daaral murtadin jërë suñu sugliloo su boobu nga xam ne dañ ci wane sa mbir kanam ña la jiitu woon ak ña nga jamono anteel ak ña la topp warafata muy ndu muy ndam lu ñëpp teewaare ndax ñaawoo muy gàtti bu ñëpp teewaare mu ne xel ku ne war na doo waajal bis rafetal topp yow li nga ci mën a sikkal yow ñi nga ci mën a wante ñu tuuti lañ ñu dund ci àddina ñi nga ci mën a wanteel ñu ngi ci daje ñu tuuti lañ ñu ngi ci daje ñu ngi ci xam ñu tuuti lañ ñu ngi ci xam ñu ngi ci bokk ñu tuuti ñetti nit ñuy tuuti leen yow buñ la gàllankoor ci kanam ñaari wala kanam ñetti nit dafa gis ba mel ni doo ko àttane jëndoo bu baax a baax loolu koo xam ne nun nga ragaloo gàcce wax dëgg yàlla war ngaa battal gis boo xam ne rafetalu sa nekk fii gàcce bi ñëpp foog ñu njëkk ñaan ñu ñu ak ñoo nga jamono am te moo lay yawmun yasiibu fiihi l-waliidu wa yaktawi fiihi l-masuudu min al-waraa bi musawwadi yawmun bés la boo xam ne yasiibu dana koy jaaw fiihi ci moom al-waliidu gune yawman yaj'alu l-wildaana shiiba bis la boo xam ne buñ ci àggee gune yi dañuy koy jaaw naa am noonu la tëddee rek naa am it dañoo arab li arab mbir garaawee mu ne naa ko jaawloo gune loolu lañ ci jublu waaye bis la boo daal mbiram xayofut woyof kowu dana xemoo ci bis boobu almasoodu suñu sangu mooy suñu xelu suy toppe mooy waraa ci mu saw wadin ci suñu sangal mooy suñ naan buur la bu ñuy tab gis la bu xam ne suñ ko àggee kenn ku ne dana ko ne kanam yàlla duut sa lenn lu dul jàpp su borom bi li nga ne mulkul yow tey ku bi kenn du man kenn du wax bii dinañ a ma ne mulkul waaw ah ku man kenn du wax bii de déedéet moom mi laaj moo tontu moo da wax lillahi alwahidi alqahar ndax am moo fi buur bi keneen du buur ku dul yàlla da jëlaw kuñ nax teg ko ci kanam nit muy dooroo sa xeew da gàddu xàq ji loolu moom bëri da nangu alal loolu moom bëri loolu moom bëri wala ku nekk ndawal bindee fi da taxaw ci seen lépp lépp su ko defee nekk bi nekk ndawal bindee fi duñ koo tuddee buur it moom dana ko ne talu de buuru waaw loolu it xam wala nga fa nekk ndawal bindee bi bu leen taxaw ba yim leen war a aaral yëpp mu aaral leen yim leen war a fajal yëpp mu fajal leen wala buñ ko dégg itam ba mu xam ba mu xam xenam ak la mooy nag dana tax ba xalaat na lu day xalaat na ndaw bi lu day xalaat rek day xalaat dëgg dëgg moom yàlla rek moo ko def moo ko def ci àddina moo ko def ci àllaaxira waaye fii ci àddina yi day nax nit dafa jëri naxu bëri su ko defee naxu nit dana ko am ci muy am ci muy ci yàlla naxu nit dana ko am ci mu teg boppam mu suñ demee ba foofa nag ñëpp tey boppam bu ñëpp bokkee yeewoo nag lépp bu ñëpp bokkee yeewoo nag la neexu waraloon yëpp day dañ ñëpp koy bokk xam ne rek yàlla day suuf waaw duñ ko ak keneen ci kenn waaw nag gis nga ñu xam ne buñ ci àggee ñu koy leer ko te bu leeree dañ xam ne yàlla rek day suuf waaw boo ko dee fii de su ko teel a xam fii waaw kon dama yàlla waaw ndax mën naa xam lu bëri dama laa doon gis nga bu fekkee gan la fekkoon xam wala moom tur ñaaral ko rek ku nekk ndawal jundee bi kenn soxla daw ko lëggéey salu ko ci suñu dee duggee biir yi ñoom xam na ne salu ko biir yi wala kuñ nax de ñaan ko yaay biir bi mu naxu dëggee rek ko dëgg xam nga nangu xalal yoo ko xam nañ ni xaalari am ay biir dëgg-dëgg yàlla rek moom mun jëf la boo xam ne yasuubu dana béy jaaw bii ci bis boobu alwalidu gune wa waxtu bi te dana yemoo fii ci bis boobu almasoodu ku ñu sang minal waraa ci bindee fi bi musawwadin ci ku ñu sangal maarin maaritin fiihi bi axmasa bi axmasi kulli alkana alkana wayu daafu te def na dogg haadi kulli maarin dox ak aji sit maari din suraaji fetteerlu ci bis boobu bi axmaqi kulli alkana ci ndoggul ci ndoggul bépp aji doxam alkadi suraaji sat su doole ji nit amoon fii da ko nit doole jooju doole daraja la wala doole halal la wala doole xam-xam la bu jottooñee nit ñi baaxe jàmbur yu topp fa yawmal qiyaama bu dajee kam foogoon ne moo ko ëpp doole bare ko feeñ moom mi tooñoon am dooleem dootu feeñ moom mi ñu tooñoon néew dooleem dootu feeñ te ba moo jëlee xaqam il faut borom bi tabaaraka wa taala dana ko teewal ka ko feeñ mu jël li dana ne bés la boo xam ne bu jotee su amoon doole di tëggoon suuf yi wala ku ñëw moo néew doole da nga mu dëgg sa bopp rek ah bu dee ko dañ koy wax bi rek boo dëgg ci doole da nga tooñee am doole ci feeñ am na wala alal am na wala xam am na kon wayu baasu déew na dëkk abi kulli maarin doo tag ba saaji sikk maari din suraaji sotteerlu fii ci bis boobu yaa xam na fi kulli alkane ci ndëkkul bi saaji boppam alkadi suraaji tax ويفر فيه من القليل قليله ويود فيه المرء لو لم يولد ويود لو كانت له الدنيا بما فيها فأعطاها هنالك فاسكتي ويفر dana daw fii ci bis boobu leneen xalili ci xarit xalili woo xaritam wala dama gis ñoo xaritoo ci fii ci àddina su dee xaritoo ba duudoon dimbalante ci yàlla bis booba duñ bëgg gisante de duñ bëgg a gisante de alaqillaahu yawma idin baaduhum li baadin aduwwun illal muttaqiin ndax képp ku la yàqal góorgóorlu ci yàlla jarum ñu la lonk dama naan léegi ëllëg dama yàqaan dara. wala wóor bi ba na ngéeju fii ci bis boobu almar uwaay law lam yoolat da ñàkke ko jur mu ne koo xam ne dafa caaxaane woon dund ak àddina la xam ne moo taxoon boromam indi ko fi mu sàgganee ko suñ demee boromal xiyaama ba mu gis yàq bi mu li koy xaar ci toroo xànde dana fàtte xéwal ak xamal giñ ko xamaloon ba ndigeen sagoom moom fa doon doog koo ñàkk rek ah yim jaar nii du ci jaarante te lii du fa dal eh, wayu wokku ba mu ngeeju law kaanat bu nekkoon la woo de ko ñaal adduniya addina bi ma ak li ne fii ha nekk na ci addina mu taxa mu joxe ko hunaalika ca foofale fab tudd ya te joxe ko mu ne bisu keroog suñ lay wax nii ne mooy caaxaanee dundam jeexal ko ci lu neexut yàlla la mu waroon a góorgóorlu ci yàlla yëpp ba yoomal xiyaama jotee bam janoog yàqam bi janoog li koy xaar ci mbugal moom dafa moom àddina ak li ci biiram dañ ne ko lii boo ko moo lay sowal ci mbugal mi donte mu sowee ci mbugal mi lay xam sax du ci dem àjjana kon it ba ko nanga joxe ndég joxe gi jëriñ ko moom bu dem safara rek mën naa am sax bu ko defu du ci xamante àjjana fañ ko rey mbiram jeex wala wanna lilladina zalamu maa fil ardi jamian wa mislahu maahu laftadaw fihi min soo il adab yawmal qiyaama mu ne lii nii nga xam ne buñ demee ba ci àddina ak àllaaxira ak maanaam buñ demee ba yawmal qiyaama àddina ak li ci biiram mënu koo may nit dañoo mucc ci naaru jëriñ mën naa nga dem àjjana bokk gis waaw lii nii nga xam ne buñ demee ba yawmal qiyaama adduna ak li ci biiram moom ko mënu koo may nit te muy mucc ci naarul jahiim li koo may nit mooy al imaanu billahi kon al imaanu billahi te walla boo xam ne dañoo war a xam ne moo gën adduna ak li ci biiram. waaw affaire bi mos nañu koy wax. waa xanaa ñu ñaan yàlla mu saxalal ñu ko dañu koy gën a teeral rek dañu boole ci sant teg ñu ci baax balay ko yaxsan la bi xawlahu min niamin ajalluha niamatul iman bi rusuli balay ko yaxsan la bi xawlahu min niamin ajalluha niamatul iman bi rusuli wa yowattu kono ngeeju law kaanat bu nekkoon loxo dafa ñaal adduna àddina bi ma ak li nga xam ne fiiha nekk na ci àddina fa ataaha mu joxe ko hunaalika ca foogale fa tuliya te jëdal wa yowattu an law kaana fi l asmaa'i min ما ليس موعدا وليس بموعد اليوم يمرح بالمراح ويرتعي وغدا يصير إلى التراب الرمز ويود dana ngeej moom nit am law kaana nekkam bilaaj maa i ci way nekk yaa mu xel ah dama gis ko sàggane woon dundam ci lu neex yàlla ku fi nekkoon de sàggan ci yàlla bisu koro bu gisee yàq duñ yàq ak li koy xaar dana mujj dana mujj ngéeju woon moom moo dox façon daan war su ko doon ñu doon ko war ci lii du ko jot moom moo doon daan moom daan dóor xet su ko doon ñu doon ko dóor xet te lii du ko jot moom mooy xar moom rewoon lekk ko su ko doon moom ñu rew ko lekk ko te lii du ko jot mimma bokk ci li nga xam ne law sa mawaadan duumu lu ñu doxal waxtu mooy lisimam waxaata mooy fexeelam mooy bégalee nit xabaar bu neex ci jëf ji baax walaw sa dimuaatin te duut lu ñu tëkk waxeet mooy lisimam aw xaata mooy fexeelam mooy ragal loo nit ay wu koy ci liggéey bu bon su ko defee ak waxee bu baxoo ci yàlla ci nit ñi la jëm góorgóorlu ci lu baax wax du dawàllam góorgóorlu ci lu bon waxee dawàllam su ko defee borom bi tabaraka wa taala wax bi du ko xoot mukk waxeet nag mën na koo foose ndax baaxam wa inni wa in aw abtuhu aw wa abtuhu mu ne man bu ma ko toppee mbaa ma toxal la muxliku iaabi wa munjibu na al iaate mooy alwaaya ixlaas damin kaga ndax ana waa alwaaya bi nag pour bu bëggoon incha allah seen jaam rek lañ ca dëkk ndax sax yaakaar la la te dara boo waxee du bii li ngay xalal la te duñ ko gis wala duñ ko bale dañ koy gis ci ca daal ñu lay gën a xam dara boo moom ñu su bàjjanee àddina bu keroogee ba nangoo ji doxoo itam bu ko defee moom bu njëriñ lay dara itam keroog am wayu weddu dana ci li nga xam ne law ko ba moo doon duumu ko bi moo aadinte duut lu ñu tëpp al yawma tey mooy suñ jamono suñ jamono bii suñ dundu àddina bii yamrabu dana tëg moom loolu dana siigarebu bil muraahi ci jëfu waayam wayar saxee te dana sàmm da ñoom dañ leen fi andi togguñ leen dara bokkuñ ci santaane yi bokkuñ ci aaya yi ba tax lu neex ci seeni bakkan rek ñoom mën nañoo soxla loola ñu tàggatal leen nit ñi ñu leen waxaban ci wàllas yasiru dana mu mujj ila turaabi jëm ci arrin bi di turaabi mokk su ko loolu ñoom bu ci doo rek juróom jeex na yawmun yuhaabu lahu bi ummaari sara wa tusaaqu unfan kal wasiiqil mutrabi wa tujibu muhtiatan nidaa musayqirin بالحق من قصد سميع في السبيل يوم مثل boo xam ne yuhaabu def na ko loxo ngir moom fi hommaari sara hommaaru sara mu ne bis la boo xam ne buñ ca àggee waaye loxo ci moom lam bi mën a doon dañ ko képp ko ne ci biir bàmmeel pour na jógee ci bàmmeelam tam fañ ko soxlaa ci bis boobu yow moom bis la koo xam yu aabu def na waaw loxoo jëm wala loxoo jëm ci moom joxam maaris tara hom maaris tara mooy ñi dëkkee bàmmeel yi mooy ñi deexoon wati saako def na leen mang ñëw hom maarus tara fan fan ci tabal kal wasiiqi ni ki mborom muñ dajale al mutarabima de muñ dàq mu ne buñ doonee jiital nit ñi ñuy jógee ci seeni bàmmeel da war a doon sañu sañoo dajee ndax foofu lañ leen soxlaa dañoo mel ni wasiqun mutarab te soo amee ab buur am koo ne noonam la te yow buur bi nga xam noon ba nga war a xeex nga song ko xarew moom dàq ko jàpp njabootam rey ña doon jàppale nango alalam alal jooju li jur boo ko dajaloo ba mu dajee ba ñu la mungi da nga dàq dem ak jur googu nga nangu ñu dajaloo la ba ñu mungi nga dàq ko di dem ak moo di wasiyatun mutlaq xam nga wax dëgg amul benn amul benn neexle da nga ko yóbbu rek amul benn neexle bu neexee ci sa moomoon ak bu sa neexul yëpp da nga ko yóbbu rek naka noonu itam wate na boo xam ne moom su fa demee njàqare dañ ah, ko dañ dañ ko dañ ko xëy ji su fay demee naqar dañ ko xëy ji su fay demee tiitaange dañ ko xëy ji amul lenn lenn lu ñu di def lu du xëy wate bii bu ko nee ñu xëy ñu Muammar Sara mu ci atam mbir muñ de way gaaw kenn ku nekk bu déggee bi day def def suur gër nag jox gaaw li ñu waxoyu ni daa am mu saytirin waatam aji commandé ana ku di woo mooy malaaka mi wal de Israfil xam ne bu ko wanee lépp lu doxoon rek da koy dekkee ca wal ci fu jóge te itam bu ko wal bu day tuur ba kenn ku nekk daa foog ne ci toggi noppam lañ ko wala sami'an ku daa ji déggale sami'a bi maanaam musmi' arab da ko waxee léeg-léeg moom la woykat wa amen rayhaan na sab baaxee sami'o yu'arriquni waa xaabi bu jowo mooy ndax waxekat bu wóolu baat bu mën a déggale te bawoo ci rayhaana moo ma tee nelaw te ñu ma ànd ko ngeen nelaw ma lum ci amin rawhan صباح السميع يؤرقني وأصحابي هجوم معادل وهو من كسب كهجر سميع كراج دجلة أسفل كراج باطل ويضاف من بين الوفود مع سر نفي الزيوت من النطار الجيد ويا المسيء به مجازاة الأولى عمل فيقرع سنه من معبدي gis nga boo xam ne dëgg rek moo fa nekk su boobaa nag ku dëggu woon ci àddina ak ku dëggu wutoon mënuñ fay bokk baam fii jaa dina nga xam ne lu muy dëgg mu ngi fi ku dëgg ak ku dëgg wut leeroon waaye bu keroogee duñ naa ko xëy woote al iman dana wut ci ñoom bu ñu ñoom fii jaa dina mën nañ di leen jiital ci jàkka yi ñaan loo ci soxla yi a takkaloo ay sëy nangu leen a may soxna nangu leen a jox da leen boole ci tramway islam bi da leen tuddee ay kilifa da leen wax lii da wax naa mu ni kon teraanga ji ci lislaam yëpp ñoo jullit ñi ñu ngi ko bokk jàmm ji ci lislaam yëpp ñoo jullit ñi ñu li yoo ci seen wàll waaye buñ demee ba àllaaxira te ku ko doon ci njullit doon dund ci nifaax du mën a ànd ak ab jullit bu dëggu mukk nag mukk nag warana wayu kaadu dóor na dàq mooy bañ jàpp gi soriloo min baynil wufoodi ci diggante kan ñi naasiroon ay mboola mu ne bis booba bu jotee danga gis ñuñ jàll de danga ñuñ jàll de na place yooyu duñ leen ko doxati de waaw naf yo su yoo fi kenn dàq mu ne nu daaru ci wurus al jayyid wu daaj rafet ni nga tilim ñu doo ko ci wurus xam nga wurus bi boo ko jëlee ci tabaxu suuf mën nga caa jëlaale tilim bu bëri tilim boo xam ne du tàggoog moom te yaa buñ ca fañ ko war a tollee wurus ca ko ànd lu dul wurus xajoog wurus te yaa buñ foofa dañooy ànd su boobaa nag teraanga joo dogal wurus yi tilim booba fa kaay am boo xam ne fa ngaa onewaale tilim bi boo garda fa ngaa gardawaale tilim bi boo calculé yóbbul fa ngaa fawaale tilim bi da muy bëgg mu dund tilim comme wurus la waaye ndeke fa ngaa bëgg fañ war a xaajoxee rek waaye buñ demee ba ca sëgg ba fa sa war a xandi su demee ba xandi dama gis wurus jo wurus tilim donc tilim daan dem fii ca àddina noonu la naafiq ak jullit mel rek dangaa gis naafiq yi bokk ak jullit ñi ci rangay lislaam ba mel li limaan de jëriñ lay jëriñ waaw ba yawmal qiyaama muuminoona yi ak munaafiqoona yi duñ bokk barab de ñi gëm dëgg ñoom la ñuy yóbbu ca daarul imaan yi ñu am nifaaq ñu ngi seen mbir yóbbu leen ci su ko defee ñoom mbugal na mooy tatee ci ñoom mooy gën a mooy raw na mooy tatee ci ñu doon dund ci xéefër mooy masalluhum kamasali lladi istawqada naaran falamma adaat ma hawlahu dhahaba allahu bi nuurihim wa tarakahum fi zulumatin la yubsiruun mooy naa ko fi ànd gi ñu ànd ak yéen nii bokk ak yéen turaangaay lislaam bi nii nim nal ak sama àndoo xalaat rek di leen di xaar ñoom naa ko xii dama mel ni koo taal ba yëg ne muñ ci leer yëf yu buur na tamit lëndëm boo yëgee ne mos nga leer ni nga ko mën a sonnalee di ko doon sonnalee ki nga xam naka jëkk muñ ci lëndëm waaw. mu ne ko wax dëgg rek moo fa nekk de waaw ku dëgg wut ci ngëm munu fa amee àtte ku dëgg ci ngëm de waaw yooyu saa di dégg na dàq min baynil wusoodi ca diggante kan bi mais dama gis ñuy jàgg da maasiran ay mboola nas yog su yoofi ak ay teg jit nu fari ci wurus al jayyid raaji rafet ba waraa dana gis al ñaawal bi ci bis boobu mu jaafatal ulaa ñi nga xam ne amiloo jëf nañu tawattaraxoo muy sëgg innahu bañam min maabadin ngir rëcc mu ne su caaxaanee ne safa dinaam fii di ko safaaral bañ a góorgóorlu ci yàlla yawmal qiyaama bu janoog lim tarta jëf ñi doon góorgóorlu seeni fay dana mujj di rëcc rek doon doon njeeju doon lu amaat te doon lu doo am mukk rabbana axrijna naamal saalihan xayra alladi kunna naamal loolu la ñuy wax te yàlla génne yëf yi yóbbu ñu ci fuñ mën ñu liggéey li bokk rek lañ daan liggéey ñoo doon awalam na anmirtum ma yatadakkaru fihi man tadakkara wa jaakumu nadir yóbbu woon nañ leen dara liggéey lu am njëriñ fi xajoon na fa boole woon leen ak koron war a le koron leeraloon fa war nekkee yooyu ngeen fa ganee léegi kayfa suuqu wa ma li zaalimiina min nasiir xam nga doon na waar man da nga waraa dana gis al musii'u ñaawal bihi ci bis boobu mujaazatal ulaa fayanteeg ñi nga xam ne amilu jëf nañ ay jëf yu baax tawatrama muy fëgg seen bañam min maa badin ngir rek wannaasu bayna musaddalin wa mujallalin عفوا وسلو في الجحيم مهرب غرضهم ني ñaar lañ moo ko texe ak ku texe abi wala nga ne ku yàlla doxal sutura ak kum hunni moom la wax ne wan nit ñi xëy na mu faddalin nekk nañ ci diggante kuñ gënal mooy koo xam ne yàlla doxaloon na ko sutura te dundam bi du doon ku see mooy yàlla mooy mastoor anil maasiya mooy ambiyaay ambiyaay ak siddiqoona yi ak saalihoona yi seeni dund ci lu baax lañ ko jeexal ñooy ñooy borom gëneeli ñooy raw wa mu jëllaleen ak suñu muur afwan ci njéegal mooy mastoor fil maasiya moom de nattoo nañ ko sax mooy yàlla def na fi loo baaxut a def wax na fi loo baaxut a wax de ci misaal waaye nag yàlla baaxee na ko ba jëfam ju bon jooja moom nga ko baal rek topp ko ci dara waxam ju bon jooja topp ko ci dara mooy mastur fil maasiya mooy mujallalu fil asi moom buñ ko gërëmuti ah fañ ko baal rek

léegi koo xam ne borom bi da koo moom dafa lu ko sutura ba bokkut ci moykat yàlla yi ba moy na yàlla su mooy yàlla dafa luñ ko sutura ba lomot lim def muut lim def moom dañ koo wuññi mooy maftoor kon ñaar am maftoor ak maftoor wala nga ne sayet ak taqiyi allahumma asturna wala tafdaxna allahumma asturna wala tafdaxna allahumma asturna wala tafdaxna wal birru yamuru kulla barrin muxditin wal xusnu yaxsa kulla xasanin tujjudi su ko defee foofu la ñuy yem affaire yawmal qiyaama foofu la woon wal birru teraanga mooy hiw al birru ismun jaamiun li kulli xayrin yaxmuru yaxmuru dana mu muur kulla barrin bépp aji baax muxbitin ku daa ji toroxlu képp koo xam ne ragal yàlla ak di góorgóorlu ci santaane da dawi tereem nga fi doon dundee bis boobu bu jotee am mbégte rek ngay dajeer da nga mu dal ci sama boo xam ne lépp da nga am teraanga mu dal ci temps boo xam ne ñoo bëree ngi tiit nga am kontante ci temps boo xam ne ñoo bëree ngi jàq nga am ndam itam ci temps boo xam ne ñoo bëree ngi wut ndax wax dëgg yàlla yi nag du ne kenn rek mooy taxe loolu njuumte la rek wala ne wal wal birru njëkk yaxmuru dana mu muur te la barren bépp aji baax mox bitin ci aji toroxlu wal xusnu njàqare yoo saa dana mu di toll kulla xasnin bépp aji jëfañ sujudin turaaji dëgër turaaji sëddërlu ndax su fekkee ne dafa doon ku joxe ci bunt nekk ku sëddërlu ci lu bàyyi santaane yi ak dalaal yi tere yi su yow ma yomal xiyaama buñ ci àggee la ci yom dana ko jaaxal lool basayre nit ku amoon xel ñu muy waajal bokk na ca teddayu bàmmeel dama ne wa aataaban li yawmin haainin ne wali xusratin yudla ilayha aariyan min kulli shay'in غير تعيين معتدي wa muqaawilan man laa yuqaawamu wa mahabatan wa adan wa laysa bi mu'tabi wa li xibratin ak ñaalam ñaalam sax mu xam ne yëf laa def na ko yor ci lay def na ko yor ci lay ajëm ci moom aariyan di moom muraajaat lewu min kulli saat shay'in ci lépp la muy tax moo xam ne buñ ko jaatuwal di yóbbu xaale xalal di yóbbu xaale xarit di yóbbu xaale jabar yóbbaale doom kenn mbokk jege ñaale di ko ko yóbbaale di ko yóbbaale itam falal nguur xayra saa yu ndara moo sa bin jërëjën xatu xanaa daal la ci nekk liggéey bi nag faw mu yóbbaale ko muy liggéey baax moo koy doon wéttalam te wéttal ci dëgg bu rek bon moo koy dee wéttalam te ñu koy xatal rek boo waaroon nit ki soo amee xel dana waajal wéttalam woowu ca barabam booba pour mu nekk wéttal bu mu jiwu dama ne wadi xubatin ak ñaalam nga mu xam ne it laa def na ko yoor ilayha jëm ci moom xaariyan ngir moom mu daal di rafetlu min kulli shay'in ci lépp la xayra saayin dara jëf mu asatin ngiri bi mu xabi asada xabi mu yoo sidi wa muqaawilan te mu de aji man su xam ne laa yu xaawa mu défu jànkuwanteeg moom te itam kër la boo xam ne bu nit dana am kuñ ko booleel mu war a wax ak kookale ci mbiru pas-pasam ci wàllu diina wàllu yàlla sallallahu alayhi wa sallam kooka am yum koy laaj su fekkee tontu na ko tontu yin bu rafet kooku la tudanga yàlla xira di dalee ba keroog ñu soxlaatee geneen dund yóbbu di keroog saxee ba bu fekkee tontu la demeewul noonu soobu la coono day falee ba kere ñuy soxlaat keneen kundi yóbbuwaat ci kërëj yóbbu ci kërëj coono ga mooy li ñuy wax alxabru awwal manzilin min manazilil axira mu ne bàmmeel mooy kër gi njëkk ci këri àllaaxira imma rawdatun min riyaadil janna aw xissatin min xusarin muy bor ci bori àjjana yi wala muy kàmb ci kàmbi safara yi mu ne mu war a wax ak koo xam ne nit mënut jànkuwanteeg moom kon tatan ngir xal ndeg min jege lool man xati deret lool ñàkk yërmande lool wa adan wa mahabatan ak wedu ak ni mu yogoo lool wa adan ak lore ak ni mu soxatee ci suuf walaysa bi moo tëddin te duuma aji tooy na du sii tooy kooku day am xel ku nga bàyyi xel te war nga ci rafetaw sa diggante ak ki koy xelal dafa soo laajee nga tontu ko tontu yu rafet boo xam ne doo xam ja doo xam coxat jaar yal nañu yiwum ci ci ñoom xam ne duñ leen ci mukk wala buñ leen ci tey itam ñoom duñ duñ ci tey ci ñu nga xam ne kenn du leen laaj wal yawmi baynin wansifaafin fil ara wa faji'i mustafatin alayhi muakkidi wa tamalmulin wa tabaulin wa taqassufin rahman lahu wa lirahbihi wa lawati an wailin raasin ووال رائس وهزيمة سفلى وجبلان عظيم وصراط أوطان وإقوام الهوى ونفائس وحلول بطن الجسد ورغee ci soog dee moom nit bu amoon xel doon na ko waajal wa aadaadan li yawmin haailin wa li xufratin wa li yawmi bayni ak di ko tàggaloo bis muy jox gannaaw soppeem ya jox gannaaw goxam ya jox gannaaw njabootam ya jox gannaaw këram ya jox gannaaw xalalam ya jox gannaaw falteem ya yëpp mu tàggoom ñu wanti daadin ak sànneeku bilaara yi ci ndend ci ndeneer dem baru nekk moom kenn dong xanaa na ko fa ñaareel jëfam lay doon mu ne ko am xel dana waajal gis bii wax ko ji mustaqbin ak def deeg aji aji soobu bor wax ko ji mustaqbin ak def deeg aji soobu bor wala aji def deeg moom aji soobu bor la alayhi si moom muhakkidin ku daa ci tëb ci soo ci hin ci soo muy xam kan ci soo xawee ku bot te de ku métti lu muy xawee ko ndax du dem te yóbbuwut li muy laaj ko ne si jot te ci roo muy bi muy dundee ndénkaaneel yàlla la ci moom kon moom fekk mu ngi dund dafa mel ni ko amee alali jàmbur rek jar bu ñu demee ba war a dundam jeex na malaaka mi ñuy xelal muy jël ci roo bi dafa mel ni kuy ñëw te laaj nit ci alali jàmbur jim koy jim yarawa kon moom kuy fayoo ku bon malaaka moomu nag kum xas ba jogal dara mën a tura tax di jël sa roo bi déedéet amul ni pexe bu nit dem mën a def watamal mu din ak bàttar ñepp boobu nga xam ne la mooy jàng ante tiis la wataba ulin ak ndawe boobu nga xam ne bisu tuuti la jërihut min nit balaa dee rek dana mujj doon ci tuuti doonte ture yoon la waaye tiisu dee donc dara dem ci biir dara ah ci rëy ak ci tuute ci xel rek wa taxaffufin ak damm di wow di ne nit balaa dee ay ciram dañoo damm waaye fii su dee bu di fee te lim fekk mu damm ak lim fekk mu damm ñoo ci yem rek waaw ci soroxaande la woo ñu àll muy loo xam ne su ko moom su ci toll nii ak su ko nii lay demee wali rax fi ak géñoom ay bokkam ya ko tar ay wéttalam su leen neexee ak su leen nii lay demee wala wëti ak wëy fettin ak ñi naan ñoo ko amee woon ca tawat ba luñ bëgg-bëgg mu nekk gannaaw jeex na jeex na rek lay loolu moo tax balaa jeex nit na di bàyyi xel di ko jeex su ko defee ne bu jeexee bañ ne kooku dam na ñaar rek la fi baax koo xam ne tamam gi neex na ko ak koo xam ne tamam gi neexu ko dina mittu kaa nan naa si sinfaani samitun waaxaru muslim billadi kuntu asnau mu ne su ma dee xam ngeen lii am mooy nit ñi ñaari xeet la ñoo dox ku ne ndox ko kontaan ca lool ak koo xam dana ndeysaat dama taggee yu baax yoo xam ne jàpp na ne mooy samay nelaw mu ne ñaari ñooñu laa fee ba koo bit man dee naa ak kuy métti sama teere bu fekkee nit ki rafetal na dundam def ko ci lu am njëriñ su demee ba dajeeg yàlla dëkkuñ gërëm kuy nit ci kontaan ci dee am fii du ko wàññi dara kuy métti lu dee am fii kooku rek mooy métti lu waaye moom métti lu wut su fekkee nit ki nag moom caaxaanee na dundam ba yàq ci diggante moom yàlla dajeeg boromam fekk borom ba nga ko mere ne bu baax a baax bu baax kii ndox bi ci dee am kon day ndox te fekk moom mu ngi métti lu kii métti lu dee am kon day métti lu te fekk moom mu ngi métti lu te bu baax dana doy waar ndax it nit bu juddoo yooyu lay njëkk a xaj na ne alam bi muy ne alam bi mu dikk demee moo waral muy njëkk a jooy yu koy tiim dañuy kontaan tere na alhamdulilah rabbil alamin kon moom njëlbeenam mooy dafa jooy nit ñi ree su demee ba génn àddina nit ñi li ñuy def mooy soppe yi mooy dañ koy jooy su fekkee su caaxaane woon dundam la bu ko nit ñi jooy moom itam rek lay nekk moom mu jooy nit ñi ree mu jooy ah dama door bi loolu moo tax dafa war rafetal dundam bu baax bu demee ba dee bu nit ñi de jooy parce que nga bàyyee jooy yi

fekk nga dëggal sa borom te boobu yaa ngi ci biir mooy maanaam waaye yooyu tam ko def فاعمل لأجل الموت فاعمل لأجل يوم موتك إن بتوا xam noonu la فاعمل لأجل يوم موتك إن بتوا لقيت ربك ضاحكا مسرورا xëy na loolu la ñu ñu gis kenn nag ñu ñu waxoon tey dalil mooy ñoom اللهم عن وائل كاج دل راق كراج yërëm dana am koo xam ne mbir mi da koo nit fekk métteeku ko benn benn waaye dafa am lu leen boole rek loo xam ne ëmbalante yërmande dangay faral di xamee te bakkan tibbee mu gis mbir mi muy lu koy waram mu métti ko mu ne loolu dana am waawaa leen agaagi topp wala boog dafa gis ne bu dundoon nangam a nangam waawaa leen agaagi topp raisin kuraaji yéex mooy koo xam ne déegi dafa mel ni lu mu yàkkamti woon la nga xam ne lu mu bëgg a dox te bu kii doxu du ko dox léegi nag comme kii dee na moom dana ko mën a dox waaye daf ko wóor ne moom dañ waxa diinatin arab yi jàq soppalaa kuraa ji ñàkk wala koo gis ne tiraw ngay àddinaam ci dund ak kii la kon kii doona moom buntab tiraw ngam tëju na mu métti lu nde ñàkk ji ñàkk lim xamoon wa jablanin arab yi din kuraa ji bañ wala koo xam ne ab noon la rek liñ naa ko métti mu taw ci bànneexam lay do te bakkan weg na dee kon kii dee na moom na ci kontaan rek ay doom ku ko reyee nit jarul teg ko de jarul teg ko de dafa am ku dee gi de neex ndeg am lu foog ne dana ko doxee ci dee ak ci wala ndeg mbañeel gu mu hëmbal ci dee nii mu xam ko dee de mit ndeg xam lu jàpp ne ñàkk na ko ndeg dee ak kile wala ndeg am lu leen boole rek lu xam ne tax na yaramam daw mooy ni ma la wax ku kontaan ci dee gi ak ku kontaanul rek la ciy bàyyi comme ni ko sanyal ba waxee idaa mittu kaana naasu sintaani saamikun وآخر مسلم بالذي كنت أصنع وفراق وفراق أوطان ak tàggaloo ci dëkk bis bii nga xam ne loo tàggaloo dëkkam bu kumb ba tabaxam yu gudd ya néebalam yu yéeme lalam yu rafet ya wa ixwaanil hawa ak ay bokki cofeel bis bi nga xam ne ci lay tàggoog soppeem ya ñoom danaan ndaxte soxlante war na faa itin aji wëluur bis bi nga xam ne ci lay tàggoog bépp xaral bu ñu ko doon tuddee waxu loolu tat mil jot jëti ak wàcc ci biiram ngap yëpp mu baleen dem dëkk ci biir am ni su amoon xel doon na waajal bis boobu te mbir la mu xam ne bakkan mënu koo ñàkk a fit ndax da koo war a càggaloo boo xam ne dajee du ci toppati te bakkan da ko fit sàbboog lim nii moo tax ne yaa ummatan li nufuusinaa min furqatin abadiyatin lil matlabin mutaawabi yaa ummatan xona ak njàqare ñun ñu foofu naa ñaa suñuy bakkan mu ne asala bakkan mën a jàqe ci dee min foo xatin ngir tàggaloo abadiyatin day ko ju faw ndaa day tàggaloo nit ñaari nit ñaar daa boole boo xam ne dajee di ci toppat lil mu ëllëg ci miinu waay al mu temps wóoti borom buñ baaxoo te xëy na boo ko nekk bu miinante amoon na sax seen diggante innal firaaqa naka topbaloo yusuuquna te ñu topp la wa yaruuna te dama ñu tiital fi haadihi dunya ci àddina si muy tàggalo mën nga koo def ak nit ngeen bokk nekk ci àddina te du tee tàggaloo ko delu nit ki muy tàggaloo koo xam ne dajee dana ci la toppa muy tàggaloo koo xam ne jokkoo mën nay am ci jamonoy tàggaloo bi muy tàggaloo boo xam ne déggante mën naa am ci jamonoy tàggaloo bi ànd ak yooyu yëpp lu mën am ci tàggaloo bi dafa bakkan ci biir ci tàggaloo day métti lu tàggaloo bu xoyoon tuuti. wa tayyibul mutanabbi ba wane ahyaa wa ay toru maa xaafaytu maa xatala wal baynu jaara ala boxti wa maa tabala dafa tàggaloo gi dajee di am moo ko tàggaloo mu ne maa ngi dund waaye lu gën a néew ci li ngay jànkuwanteel moo rey ñu de waaw ay koruma dem tey néewi laa la xaa kootu jànkuwante naa ak moom maa mooy li nga xam ne xatala roo na ñu dee maa ngi dund de waaw lu gën a néew ci li may gàllankoor ci biir moo raw ñu dee de xëy na du wal baw jaara ala bon fii wa ma fadala mu ne si ñu ni nga nekkee baxee am ba waaye baw nu ci ni mu doonee euh, ku jàng tax na faxaree ma lay de kon ko toog baw ma wajadat lahal manaya ila arwahina subula mu ne bu duudoon tàggalaw topp yi kon kenn du dee ndax ni konoon nit ñi dañ mën a lëkk bu malakul mawti bu jógee kum soxla yi du la mën a gis di xaw fu muy xaw ba war a xas ci yow mi si ne ba nit ñi nëbb yi dana leen weer ah su ko duudoon kon nit ñi mën nañu rëcc dee xam nga lépp lu tàggaloo dëgg la soo tàggaloo yooyu yëpp dajoo mën na cee toppaat te dajoo amee gulu bam jokkoo dana am anam gum mën a amee te kooku mën na ko doon jaama di tàggaloo bu gën a sori lool kon tàggaloo ko xam ne dajoo di ko toppaat jamono tàggaloo bi jokkoo di jote am du kay moom la boppam loolu moo tax bakkan mënul ñàkk a jiddee mënu ko ñàkk a méttilu mënu ko ñàkk a jaaxal wa samsu aalisatun taduubu alan wa nafsu aalisatun taduubu alan nawa dawban lujayni ala lahibil mawqibi wa nafsu bakkan aalisatun aji miinu la bakkan moo baaxoo bu tànnee dara day bàyyi xel muy dara muy moog dara jooju rek te boobu dana ruyu alam nawaa ci sori daw ban lu jëni kam ruyu xaalis ala lahidil mawqidi ci tàkk tàkkatal saalu kaay safara mu ne ni ko ni ta ni tàggaloo di jeexitalee ci moom mu ngi mel ni boo jëloo xaalis nga def ko saal na ko la naftu di ruyelee jëmm noonu la tàggaloo di ruyelee jëmm di ruyelee naftul insaniya mooy bakkan wecc jëm wecc tàggoo mën naa def ci tàggoo te soobu dana mu ruyi alam na waa ci sori taw ba mu génne jëm ruyu xaalis ala la yubil mawqidi ci tàkk tàkkatal taalu kaay safara yàgg ba léegi ci affaire tasawuf lañ nekk jàng nañ ci mbiru dee ñu jàng ci mamlakatul insaniya jàng ci daarul axira te nit ki ci waajal li mu war a waajal su ko defee suñ ko bakkan mën na ñàkk a ci dee ndax dafa waral siraatun abadi te bakkan lu mu xam ba niin di bëgg ba tàggoog moom ci boobu nag lay jàddee doxalaat ci beneen moom tur ci anaasir yi nga xam ne xasida bi làmboo na a moom tur bi liñ ci wane mooy xamaasaam mooy liñ doonee ci dëgër moom ci pas-pasam dafa wax ne dafa am benn bu ñuy wax bind ñu dem dem miinante moom mu bëgg wuti xam-xam te balaa sotti nag mu bako si te bind bëggul tàggaloog moom nag muy seet nu mu ko jéem a dëppee te moom yow dëpp ko mu laa ne war xarra at hindun waxtaanat xurratan min qablu an nanawal ahibati diixati فتوكد فوق القتات وأبطنت جمر الغطاء وتململت في المرصد ولقر عليتنا جرمينتنا هند هند مخنن والأحبة سري سطي في غد نكن في أمك im na garmeen tana ne man tan na ko jàmm ma sori ko ndax ku yoon laa wa kaanat te nekkoon na moom Hind xurratan daa yaatu min qablu ca njëkk te naagu woon na doon ne man ci la tàggaloo laa ak moom ndax duut nit ku amee tajaari bëri yum xam ci doxinu day jàpp ne ku ànd ak nit da ngeen war a tàggaloo xam na ko fa tawakkadat mu daganoo sawkal xataat yi dégg xataat garab gi ñaŋ am nañu ko soo tollandiwul waa tanat te mu diiroo jamral xataa xalu xataa dama tam garab gu neex tàkkat la wata malmalat mu jàllar ba ko baatana neeku fil markabi ca tëdd ca tëdd waayam yandoor waayam fii markabi haa maanaam mu ne bi mu gormente ne man ku jóg laa dama koy sori métti lu tàggalooy wane na ko lu ne lu muy def bopp mel ni ko baganu ci dëj la li mooy def jëmm ji dafa mel ni koo woon na xal la te dabarañu ko nag ci law bi te dul dalul te dalul te dul dalul te dafa sadat mu doganaayoo saw kal xataat yi dégg xataat